Mmh. site boo xamante ni la yéen waa Gossas yéen a ko war a dooleel. Mmh. yéen a ko war a jàppale. esprit mmh. Gossas TV international la. fii ba Dakar ñëpp koy suivre. àddina wër nga këpp ñëpp koy suivre man Pekh bis ni que ci esprit Gossas TV jërë ngeen jëf. dëgg la mu baax loolu yow kaay sa yaay da laa gërëm. waaw waaye nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw si pare yi. waaw nee na ngeen ñëpp ngeen toog moom ci drapeau président Macky Sall bi. dëgg la waaw yéen ñëw leen voilà ñu ne pour que loo siy sànni. mais nag bala nga wax. waaw damaa bëgg ñun ñëpp ñu ñëw taxaw. waaw président Macky Sall bu ci biir dina yëkkati kàddu. ñëw leen may sa ñëw leen. am na yeneen ndaalaay yu fi nekk dana yëkkati kàddu. waaw. tayi tayi dina defal lu baax dal koy wax mu dina defal lu baax soo waxulee déglu ay loolu moo ndeysaan am ñu ko wax bu ñu wàcc si ya ya, ya xëy ya ya, sangoon yëkkati na ya, ya bi la yaaya su ko dee I'm gonna Yeah.

di rafetlu vraiment seen teewaay fii waaw comme ni ma la ko waxee sànq rek vraiment sama xol dafa sedd dama kontaan parce que euh, jeunesse bi wuy si nan waa Gossas wuy si nan te vraiment lii la ci bëggoon lii rek moo nekkoon suñu yéene te wax dëgg fa yàlla kon comme am nañ ko nag ñu ñu def lu dul di sant suñu borom di gërëm suñu borom euh, vraiment parce que yombul woon au début demoon nañ sax ba xalaat ni est-ce que duñ ko repousser et si suñu góorgóorlu ak kattanu suñu borom yàlla na ba bi mu antu même su fekkee ne xawoon na métti tuuti mais man population de Gossas euh, jeunesse Gossas ñu kontaan rek man loolu laa si jublu quoi vraiment ak coono bu ma si mënti jëlee pour man jar na ko quoi vraiment waaw. mais sa gis nañ ne lii mooy deuxième édition bi daaw amoon na mu doon réussite bu extraordinaire ren tamit gis na ni mu demee car macha allah am nga ay mbër nga leeral ñu ci ni ngay def ba décrocher mbër yi waaw loolu boo ci mënee indil ay leeral. vraiment waaw Cheikh. encore une fois comme li la wax rek yombul quoi vraiment parce que mën na la wax ni sax c'était un eh, eh, rêve la won quoi vraiment d'abord ba ma daan seetaan si ay combat de lutte ci télé et eh, de suite yaw jaal mii seetaan naa ko seetaan bu ma waxoon dinaa dem bëgg a ay euh du bu ko gëm mais comme li ni ah, wax rek fii mom ngay gor gor rek suñu borom mo lay mo lay mo lay pousse quoi comprendre nga vraiment et amna aussi équipe boo xamanteni ni ci des jeunes dynamiques dëkk sa fii nekk jàmbaar di ma jàppale. ngay gis si kanam nii mais am na ñu bari ñu nekk sama gannaaw di ma jàppale di ma puus comment nga gis saa yu ma geesoo gis leen damay a am damay yokk lépp loo xamante ne nii dama ko a def vraiment te ñoo si jàpp structure la quoi MCN production euh, du man kese. waaw surtout la euh, lépp loo xamante ni rek waroon nañu si si si cadre lu war a lu war a lu war a def si Kurman man def nañ kurman quoi comprendre bon def Kurman ko pour man décroché sax boo demee bu dugg si nag ngay xam mais bu fekkee nekkoo si da nga yaakaar ne yow décroché ay ay affiche moo si gën a jafe alors que loolu moo si gën a yomb waaw moo si gën a yomb vraiment et vraiment kontaan ak jim tubuloon mi nga xamante moom yàlla dafa dogal mu daanoo. gën a moom moom moom ki daanoo. il paraît que kii woon loolu euh, moom nag mu vraiment mu ñaanoon ma ne dafa bëgg a jëlal doomu ndeyam revanche boo xoolee combat revanche lay lay lay bëriwaat waaw combat revanche kii nii doomu doomu kajoor bi nga xamante ne nii mooy bëreeg mu ngi mu ngi bokk écurie Lac de Guiers 2 na si yu mag yi mag a mag yi tey jii bu Lac de Guiers woon foofu amaana moom wala wala kafee topp moom mooy topp si gannaaw kon ku mbër mu mag la dañ jàpp ne ñii si mu ngi mu ngi si huitième euh, affiche waaw am na 4 victoires kon du mbër mu ndaw Salmon tamit noonu ainsi de suite ndax daaw bu mu fi bëree yàlla daf mu gagné dafa dem une semaine après dafa dem arène nationale gagné fa lutte avec frappe amaana ay nañ jàpp ay mbër yu mag la amaana te vraiment ñu ngi am tuuti déception daal lañ ci am muy Modou Lo nga xamante ne nii waxoon nañu vraiment day ñëw mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mu ndam umra euh, yéeneem ak kàttanam moo doon mu ñëw parce que daaw dafa def vidéo woose waa Gossas yëpp amaana mais cette fois ci moom dafa dafa dafa dafa affiché ne woon day ñëw mais lu jaam ak pexem yàlla ak dogalam comprendre mais nag jëmu doon naan na bu ci troisième édition bi incha allahu rabi di ngeen fi gis mbër yu mag a mag a mag a mag a mag a mag fii voilà yan mooy projet MCN production ndax yaa ngi envisagé génn dëkk bi dem au niveau national pourquoi pas arène nationale waaw vraiment gars yi ñu ma koy wax ñu ma koy wax ñu ma koy wax mais nag euh, comme li may wax rek Euh, affaire yi moom da ngay da ngay da ngay def nànk rek euh, am na loo xamante ni foog nga jaar si comprendre comme li ma la wax daaw boo gisee li ma def nii peut être peut être am na si yoo xamante ni dafa naaw daaw dafa ma ko ren am na loo xamante ni avant ma koy décroché yooyu yëpp mi métti woon na boo xoolee euh, li tax mu li tax parce que amu ma woon yenn expérience comprendre bi ma demee tey jii ba am si yenn expérience day day yomb si yow comprendre maa ngi envisagé pour pas pas si même si région de Kaolack Euh, def si ay affiche kon bu ma demee ba si envisage génn ko fii ay région de Kaolack wala Fatick comprendre nga euh, je pense que na naa mën a dem sax euh, ay ay ñu may woo mais man damaa jàpp ni lu jot rek yomb kon dañuy def nànk rek bu ñu brûler les étapes quoi comment lu jot yomb bon na daal comme li ma la wax rek ñu ni neen la quoi Gossas dañ jàppalante gungante suñu biir xam na ñun lépp lu ñu am suba ba ngoon Gossas mooy ko gënal lépp luñ gis si mu rafet wala mu neex dañ koy fexe andi fi mais nag si cadre jàmm euh, ak salaam quoi vraiment parce que Gossas ñun loolu lañ xam euh, dañoo fekk suñuy mag wala suñuy kii ci ko fi comprendre ah, ñun waruñu mujjee dërëm bi muy muy réeree suñu loxo quoi flambeau bi mun dañ ko war a jox suñuy rakk wala suñuy jarbaat kon dañ leen ko war a jox suñu rafetee quoi vraiment waaw yow ma xam la ba ma la xamee ba léegi mosuma la xam si si liggéey ak ak ak ak ak kii rek laal ak ak xam musuma la xam si dara lu ñàkk fayda vraiment waaw ma lay encouragé aussi nga jàpp si yàlla dafa doxoon daaw Youssou moo fi toogoon te gis nga li yàlla def mais affaire bi relai la fii moom mooy man mii sax war mën a dem ba léegi affaire bi jox ko keneen muy continuer di di continuer def kii bi quoi vraiment waaw continuité la quoi dëgg la voilà incha allah yàlla baax na daanaka waxtu bi euh, mi ngi ñëw xocc yaa ngi ñëw euh, sa invité ñi ngi ñëw ñu bàyyi la rek euh, nga tàggatoo ñun ak yow la fii euh, ba làmb ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan bi. waaw waaw waaw di gërëm encore une fois population de Gossas surtout la jeunesse euh, di leen sant di gërëm parce que wuyu si nañu Ah, wuyu si nañu vraiment ah, ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox ay rendez prochainement incha allah du yàgg dara dara dara incha macha allah donc kooku moo nekkoon Meissa Ndiaye nekk euh, président MCN production ñu koy encouragé di ko félicité moom tamit xam ne li mu jógtee yombul waaye yal na ko si yàlla jàppale yana si yàlla taxawu ba xam ne ni euh, mu gis loo xam ne nii weesu nga weesu na sa njort. salaay salaam man yaa wu jaal heure ma xëyee esprit Gossas TV moom a seetaan fu ma nekk ak ma nekkul